asalaamaaleykum mbokki xaritu internet yi gannaaw bi ñu leen yoo sant leen ku ci nekk di leen dalalaat ci seen benn émission laadum comme ni ñu koy faral di defee saa su nekk tey ñu ñëwaat fii ci Dakar Scat Urbam euh, seet si bergerie boo xam ne mu ngi tudd ci El Hadji Omar Foutiou ba pare ki ko représenté wala ki ko moom ci boppam di sire nga xamante ne ni Amadou El Hadji Siré Ba nga xam ne ñëpp ràññee nañ ko ci wàllu l'élevage mu nekk grand boo xamante aussi tamit nekk président Grand Yoff Ladoum donc Grand Yoff Ladoum nag benn association la boo xam ne dafa regroupé képp koo xamante ne ni euh, éleveur nga ba pare di évoluer ci élevage rawatina ci diwaan bi nga xamante ne ni mooy Grand Yoff tey nag li ñuy fay faral di defee saa su nekk mooy fexe euh, ñëw joxe visibilité wane li nga xamante ne aussi ay experts lañu. ñëw seet si leen nga xam ne seen i xam-xam ñëpp nangoon nañ ko aussi seeni liggéey sénégalais yëpp aussi tamit rafetlu nañ ko ci wàllu l'élevage donc moom nag euh, nga xam ne moom mooy borom bergerie bi di El Hadji Amadou Siré Ba donc non seulement sax ci wàllu élévage bi mais amour bi mu ci aussi mais sur le plan social culture boo xamante ne aussi tamit mu ngi koy def ñoom seen biir ci association bi nga xamante ne mooy Grand Fladoum tey dañu am mbégte ñëw seet si ko fas yéene leen woon li nga xamante ne ni moom mooy box yi fi nekk donc wax leen li fi woon ci ay femelles ci ay laadum ci ay jeunes mâles donc ba pare fas yéene waxtaan ak moom aussi tamit ci entretien laadum yi waxtaan ak moom aussi sur le plan sécurité sanitaire aussi ci environnement bi xar yi ni ko naka la ñuy nekkee naka la ñuy dundee donc ak jaar-jaaram lan mooy euh, njëriñ bi aussi tamit lan mooy coono bi ndax l'élevage dafa métti il faut ngam am amour bi te moom aussi 24 heures sur 24 mu ngi fi nekk xar yi donc voilà ak xar yi quoi semaine maintenant mbokk yi nañ ñëw euh, won leen donc kan mooy euh, li nga xam ne moom mooy euh, bergerie El Hadj Omar Foutiou Tall donc aussi dañ ci waxtaan ki nga xam ne mooy boromam mooy El Hadj Omar El Hadj Amadou Siré Ba donc waaw suma doom bàyyi la danay ñëw mais li ñuy def mooy fexe leen won donc quelques démonstrations yi nga xam ne jot nañ ko fi jël ci wàllu maal ci wàllu xar yi fi nekk ci wàllu laadum bi ñu seetaan ko après te ñëwaat daal di fas yéene waxtaan ak El Hadj Amadou Siré Ba c'est Bienvenue. mbokk yi gis ngeen loolu nga xam ne nii moom lañ leen fi jot a woon ci wàllu ci bergerie bi nga xamante ni mooy El Hadj Omar Foutiou Tall euh, nag ñu ngi ak patron bi mooy El Hadj Amadou Siré Ba nga xam ne ñëpp ràññee nañ ko ci wàllu élevage mu yàgg ci lool nekk ci un grand monsieur ba pare nekk ci koo xam ne aussi tamit sur le plan partage donc ni mu ci mel donc c'est extraordinaire parce que ñun balaa ñoo ñëw dañu lay laajte ba pare donc nekk ku yéwén moom euh, jiite euh, Grand Yoff Ladoum Grand Yoff Ladoum comme ni ma leen ko waxee sànq dafa regroupé képp koo xamante ni éleveur nga te am na ci ñoo xamante ne sax grâce à moom la ñu nekkee éleveur am amour di partager ak moom tout le temps soo ñëwee gaa ngi koy jege à travers bi mu am jaar ak ci laadum at bi mu ci dugg donc waxtaan ak moom ci côté environnement bi xar yi donc nan la ñuy dundee ci li ñuy lekk ok ci ni ñuy fajoo donc ñu daal di ñëw mais laataa loolu dama koy tàllal micro bi mu daal di nuyu ak askan bi donc waxtaan ak nit ñi présenté wu wax ñu tuuti ci jaar-jaaram maa ngi lay ziar grand. maa ngi lay fay man la Amadou Siré Ba di yore bergerie El Hadj Oumar Fouti dëkk fii ci Escad Urbam maa ngi leen di sant di leen gërëm. ginnaaw bi ma sante yàlla nag julli ci yonent bi sant sama sëriñ euh, Maolana Mouhamadul Bachir Muntaga daxa Cheikh Umar di ko ñaan yàlla yàggal ko may ko wér te yàggal ko suñu kanam mu yàgg ñoo jiite ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Umar Fouti tey nag maa ngi kontaan lool si ñëw bi ngeen ñëw fii wax dëgg yàlla fekk ma ak samay am di jàmm ak samay xarit macha allah daal boo bëggee dégg-dégg daal vraiment maa ngi leen di wax ne leen soyez les bienvenus bisimilla bisimilla Grand Yoff yow yaa jiitee Grand Yoff Ladoum mu regroupé ay éleveurs yu bëri mais laata loolu donc niñ la ko tabe aussi bëgg nañ koo xam ba aussi tamit li nga li nga def ci xar yi temps bi tey soo ñu doon wax tuuti ci sa jaar-jaar naka nga def donc fi nga jaar donc naka nga def ba vraiment ci élevage nga tànn ci xaru laadum yi euh, ba agsi tey fi nga yegsi. waaw xar yi nag moom comme ñun ay tukulóor lañ xam nga tukulóor moom ak xar jur ñoom daanaka ñun dañoo juddu fekk sunu kër maam yi ci Louga ñu fekk ñu yor jur gi ñuy nekk di rattak di xontak ak di sàmmeek lu ne def nañ ko ci wax dëgg yàlla amour bi foofu la commencé sama maam bi jur sama yaay mayoon ma benn xar fekk dafa bëri woon ay xar ba doon ci dindi asaka léegi nag mu mayoon ma benn xar may sama ñoom nijaay ku nekk benn mais ñoom ñëpp ñu jaay man ma téye man nag sama xar dem ba développé booba Louga laa doon jànge ma jël xar yi ma indi leen sama kër papa mu am nag benn paa boo xam ne bii xeetu xar yi maa ngi ko njëkk a gisee ci benn kër paa bu ñuy wax ne paa Babacar jeng Louga ak euh, paa Mboose Thiam mu doon defar ay euh, montre te de kër Serigne Louga ñoo fa yoroon xeetu xar yoo xam ne kenn yoru ko fa woon su ma mosaan a wàcc école semte Louga dama doon dem kër euh, paa kii Babacar Dieng bëggoon ci xar yi lool mais su ma waxee rek mu paa bi ne ma du jaay ba benn année paa bi gaañu bi paa bi gaañoo nag ñu ne ñu ngay jaay xar yi paa màggat seen benn paa parfournier bu yoroon ay fas course ne ma yow ni nga bëggee xar xeetu xar yee moo baax ci yow ma dem fa mu yóbbu ma fa ma jënd fa benn tëng bi ma jëndee tëng bi booba aide scolaire bi ñu joxoon moom laa dajale jaay ko ba xar yi ma sama maam mayoon laa jaay dajaleeg sama aide scolaire ma jënd ci xar yi ci laa commencé am xar yi bàyyi indi leen fii sama kër papa géejawaay boobu ñu ngi dëkk géejawaay sama kër papa ma indi fa xar yi xar yi yàlla def ci barke nag ñëpp topp sama papa sa xar yi sa xar yi sa xar ba benn année ñu sàcc xar yi yàlla dogal ma nit ma dem à l'étranger bi ma tukkee premier année ma ñibbisi ma jënd xar bi ma jëndee ci ku ñuy wax euh, Ndëri Jaw sama benn ex professeur moomu njëkk a jaay xar ma jaayee xar ma indi ko fii après demaat ki ku ñuy wax njaw njaw Diop bu nekk Thiès ma jënd fa benn femelle à 1 million 500 ma bàyyi ko fekk mi ngi ëmb ma bàyyi ko fi tukki muy am doom femelle bi doom bi daanu moom mu daanu bi ma ñëwaatee ma jëndaat bi ma jëndaatee nag laa nekk ci xari boobu xari ci suuf lañ nekk booba it meluñu woon nii booba xar yi aussi coow bi ci nekk ak lépp booba xar meluñu woon nii boobu dañ ko jàppe woon rek amuur nga nekk ci xar yi am nga ay xar nekk ci boo bëggee rey rey boo bëggee tëbaski tëbaski boobu sax affaire bi jaay bi demawul woon nii quoi sincèrement jaay bi demawul woon nii ba finalement nag jaay bi ki léegi engins yi commencé xaalis bi bu mu duggee engins yi commencé léegi nag ñu ne nañu gën a améliorer wut xar yu gën a baax ci la ñuy nekk di liggéey di liggéey ba arrivé ci xar yi ñu yore nii yàlla dogal ñu ngi ciy sant aussi ñuy am di jàmm ñi nga xam ne ñi ku mel na suñu maître parce que tey bu ñu wax Grand Yoff bu ñu wax laadum kenn mënul wax laadum tey te mënoo cité Mame Gor Sylla Mame Gor Sylla mu neex mu naqari yàlla moo ko jox cër boobu il faut ñu nangul ko ko parce que loo gis daf ci am ay pionnier te ñun bu dee zone Grand Yoff bii tey Mame Gor Sylla daf fi pionnier ci laadum mais ñun man sama wàll bopp man dama naan toujours dama ko nangul naan ko man sama sëriñ nga man damaa nangoo nekk taalibe li tax li waral loolu mooy dafay ndaanaan ci élevage te moo mën a ñëw sa gétt xool joxoñ ne la bii téye ko bu ko joxee te boo ko téye nga am ndam looloo tax nag man ba pare mu ñàkk ci kiñaan loolu nag man moo tax maam góor si la toujours fu ma ko fekk dama ko naan man sama sëriñ nga sama kilifa nga parce que dafay nit koo xam ne kii ku ñàkk kiñaan la ci élevage ak ku mën a dimb dalay xool sax ne indi indi say xar mu tëbu fii xam nga nit ku lay wax loolu aussi ku la yéene lu baax la moom moo tax élevage bi boo xoolee ba xool maanaam li ñuy wax élevage partage mooy loolu parce que tey maa ngi tëbalu ji maa ngi tëbal ay nit parce que loolu lañ fi am parce que élevage bi tey koo fi dem këram nga gis loo amul sa kër ku ñëw sa kër gis lu mu amul këram noonu la élevage bi demee leneen li nga laaj aussi mooy ci affaire u Grand Yoff Ladoum affaire u Grand Yoff Ladoum Ablaye Dieng suñu xarit la di suñu booy defoon fi benn ñu formé woon fi benn groupe mook euh, groupe d'amis ñu def euh, benn groupe WhatsApp bi ñu demee def benn groupe WhatsApp ñu wër éleveurs yi nekk biir commune de Grand Yoff ñu ne ñun daal dañu bëgg a def benn association bi ñu defee loolu ñu dawal ba ci biir léegi ñu dem di wër kër yi am euh, ñi élever ñu dem gis leen wax leen ko ba yàlla dogal ñu ne nañuy daje fii ñu organiser fa ay réunion ñu ne nañ ko def association ci lañ commencé ba doxal association bi man nekk moon candidat pour nekk président defuma ko aussi sama kër pour ñu fiy réunir pour kii peut-être xëy na peut-être sama kër am na espace rek ñu ne nañ fi daje ñoom ñoo baax te ñoom voté wuñ defuñ dañ ne Siré mooy nekk président Amadou Siré Ba mooy nekk président mais man sàkkuwuma pour nekk président man parce que am na ci ñoo xam ne ñii bu dee xam-xam ñoo ma ko bu dee xam xar yi ñoo ma gën a xam xar yi bu dee xam-xamu àdduna aussi ñoo ma ko ëpp bu dee xel aussi ñoo ma ko ëpp mais xëy na ñoom ñoo baax rek yéene ma jiital ma ci mais man aussi man ma jàpp ne ñun ñëpp ay président lañ parce que ñun ñëpp ñoo koy bokk di ko doxal ñu organiser benn bureau par la suite ñu dem ba ci biir nag ñu ne comme waa waa kii waa amoon na biir Grand Yoff benn association bu fa nekkoon ñu ne nag comme lépp si commune de Grand Yoff la na ñu ñëw ñu waxtaan ñu def ko benn association nga xam ne commune de Grand Yoff yëpp benn association éleveur lay am te defe naa nit loolu moo gën a sakkan loolu moo gën a baax loolu lañ mujj def waxtaan nañ am na ñeneen ñu ñu bëgg a rencontrer pour euh, euh, gën ko yaatal ba mu nekk benn association pour l'instant daal foofu lañ ci toll moo tax yëngooguñu defaguñ si dara am na cotisation yu ñu commencé woon aussi di cotiser ci as euh, ki ci ci Grand Yoff Ladoum bi am na cotisation yu ci cotiser woon ñi ngi ko teg pour l'instant nii ba euh, fédérer gars yi suñu bu ko defee suñu fédérer les associations ñu doog a xool créer waat un autre bureau bu ko defee ñu woote assemblée générale créer un autre bureau ñu commencé doxal suñu suñuy mbir quoi noonu daal la demee. pour l'instant. ok donc noonu la demee mais tey actuellement nii soo ñu wax bi nga commencé tàmbalee donc des années quatre-vingt ba léegi fi nga jaar comme ni nga ko waxee sànq. de Louga bi nga nekk xale ba tey à nga continuer voyager ñëw mais sa premier Euh, bi nga yëkkatee sa xaalis jël un million cinq cent mm-hmm. nga bàyyi fii mu daanu après nga ñàkk nga ñëwaat découragé wo mm-hmm. nga continuer di ko defaat motivation boobu waaw ah. motivation boobu moom xam nga li ma lay wax rek ne comme da ngaa juddu fekk sa maam yor ay xar yor ay nag sa papa yor ay xar yor ay nag xam nga affaire boobu boo ci juddoo yow toujours c'est le sang qui parle mooy il faut nga wut xar parfois dama doon joge voyage moo ñëw fekk xar yi yooyu ma mer booba sama yaay mi ngi dund mi ngi fii ci kër gi ma mer dama naan damay jaay xar yi ma bàyyi leen ko mu bomb ba sonn rek bu amee une semaine mu génnaat te effectivement gis nga bu amoon une semaine day mel na du woon man naa ma waayo waxa woon da ngay jaay say xar man leen déedéet man jaayatuma samay xar ma continuer commencé waat di defar di toppatoo xar yi rafetaat rek ma génnaat ci waxu waxu jaay ci biir loolu ma dem benn instant Euh, Omar Sène bu mandeel Couture boobu mi ngi dëkk fii en face am benn femelle bu ma fi bëggoon euh, femelle bu ñu wax marche arrière moom moo ma ko proposé woon sax femelle bu jur doom yu baax sax ma dem benn instant rek ma ne ah fekk boobu maa ngi tabax fii mu ne ma bu ko jënd àggaleel sa appartement bi quoi nga nga bañ a jënd xar ma dem benn instant ba Omar Sène toxu fi dem Point E wetu kër Ablaye Wade benn jour mu woo ma ne ma waaye sama xar bi yaa ngi koy bëgg ba tey ma ne ko waaw ma dem finalement mu jaay ma xar bi 900000. bi ma jaay xar bi mille ma ñëw defaat ci suuf boobu gétt gi nekkul woon fii si kaw ma defaat ci suuf xar bi def fi 3 mois seex euh, ak benn maal bu ñuy wax euh, kii mm, maal bi euh, doomu kii la woon lu mu mu jële woon ko ci aalis yi mu seex ma dawal tuuti jaay benn doom bi un million ma commencé nag ma jaayee doom bi un million ma ne ah affaire yi kon neex na ci laa continuer nag gën a ancré wu ci xar yi. def ko def ko business ko waaw ma def ko business nag. daanaka soo xoolee sax ci année yi mu yi nii man ça fait neuf ans daanaka tukkiwuma maa ngi fii toog Sénégal te xar yi booba jamono suma papa daf feebar bi suma papa feebaree ma ñibbisi si après daal ancré wu ci xar yi ba parfois damay yërëm xar yi ba duma bëgg a dem fenn même su ma génnee dakaar damay profité pour fanaan si ndax xar yi mais. da nga dem ba am amuru xari yi quoi mais tey jii nii sur le plan sécuritaire tey. lan nga mën a mës mën a wax loo xam ne dund ko ko ci xar yi ci yar yi nga yar parce que xar yi jël ay xar yu jar ay millions teg ko fenn tey donc ak ni réew mi mel tout le temps yaa ngi dégg loo ci mës a jàkkante jànkonteel loo xam ne sur le plan sécurité la. waaw sur le plan sécuritaire moom wax dëgg yàlla yàlla defal nañu ñu sutura parce que xar yi euh, fi ñu nekk nii dafa kawe te yow gis nga bergerie bi nii niñ ko defaree nii maanaam lépp dañ ko def ay gris tëj ko bu guddi jotee nii fi mu toll nii dañuy tëj lépp. tëj euh, porte terrasse bi te comme mi ngi ci quatrième pour yéeg fii dafay jafe te loolu sax moo gën a yokk man ma toxu si au troisième parce que dama ne comme xar yi ñi ngi si kaw mën naa tox si au troisième pour mën leen a yëg bu bruit bu ci am mën a am ma mën ko yëg parce que mënoo jaar ci xar yi te jaaroo fii ci apartement fi ma dëkk looloo tax yàlla defal nañu sutura daal ba amaguñ ci benn tolof tolof te ñi ngi ñaan yàlla aussi yàlla defal ñu ci jàmm defal ko suñu mbokk éleveurs yëpp yàlla musal ci kuy éleveur bu mu ci am benn problème waaw. Euh, gis nañ affaire aussi tamit environnement bi ñu gisee box yi ni nga ko installé donc ni mu jaaree yoon entretien bi maanaam xar yi dundin bi lan lay laaj. entretien bi xar yi. xar yi daal entretien bi moom dafay laaj tout le temps ñuy set ñuy sangu ngay changé litière bi ak lekk bi aussi nekk nekk lekku qualité parce que man dama bañ ba box bii ngay gis ni boxu naaj la. parce que xar yi vitamine D vitamine A si naaj rek lañ ko mën a am parce que boo gisee xar yi problème yi ñuy am yu bëri xar yi dañu sédentaire dañuy nekk tëdd benn place rek ci sedd bi duñu am naaj léegi nag man looloo tax sax ma def box bii nii pour nga xam ne xar yi ëmb yi dañuy ñëw di yendu fii ak maal yu mag yi may alterner par box chaque jour am na ñuy ñëw fii yendu fii si naaj bi ba 16h30 ma dugalaat leen noonu daal laa koy doxale pour l'instant nii quoi mais est-ce que jàpp nañ ni tey ki nga xam ne c'est la nouvelle génération ñu lay seetaan donc am amour gis lii bëgg dugg ci xar yi tey soo leen doon conseillé lan nga leen doon njëkk wax tey ñu jàng ko est-ce que xar yi tey jot na ci boo ci dugg nga dem jàng ko xam ko donc xam sur le plan sanitaire parce que xar yi dafa laaj entretien vaccin yi calcium yi piqûre yi comme ni nga ko waxee léegi vitamine D bi loolu il faut nga jàng wala il faut nga laaj temps pour xam ko wala gëstu la laaj. non loolu loolu euh, jàng maanaam gis nga eh, mbir moo gis il faut nga nangu cee toppe boo ci nangoo toppe rek da ngay nekk sëriñam parce que soo nekkee taalibeem rek da nga nekk sëriñ parce que tey élevage bi dafa toll foo xam ne fii da ngay gis boo gisee même milieu élevage bi mu jaxasoo tey danga nga ciy gis koo xam ne kii ku mel na Amadou Siré Ba tey la dugg ci xar yi rek bari wax chaque jour nga koy dégg boo demee ci foire ña ngay talalali ña ngi kii te dara enjeu wu xaalis bi la Amadou Siré Ba yor benn Amadou Siré Ba yor na xaalisam dem jënd ñetti xaram tey moom xam na lépp maanaam nangu ñoo weeg mag ñi te élevage bi fii tey lu waay mën a wax ak loo yor xaalis fi mu àgg mag ñee ko fa yóbbu mag ñi kon li sëriñ Touba doon wax rek ne yaayol yool sibyaanu laa tax taxulu anil huda mooy mag ñi dañoo war a yërëm ndaw yi ndaw yi respecté mag ñi mais biir élevage bi dafa dem ba benn instant boo xam ne bi ndaw yi joxatuñu cër mag ñi te élevage bi tey bu ñuy wax élevage mag ñi la kon dañoo war a jox cër mag ñi yow soo amoon xar yuy jar cent millions man bu ma gisee magu élevage yi man dama leen war a jox tarbiyu leen te bul jàpp ne am nga xam-xam jàppal toujours ne amoo xam-xam dee leen laaj toujours ñu wax la loo xamul ci jur gi parce que ki la jiitu ci mbir moo la ko gën a xam te loolu moom mooy problème bi actuellement nii moo tax boo gisee mag ñu bëri ci élevage bi dañoo retiré wu doo leen gis ci foire doo leen gis dara ñi ngi toog ci seen kër te ñi demul foire boo demee ci seen i kër mag ñooñu boo demee ci seen i kër fekk fa xeetu xar yoo xam ne bokkul ak xar yi dem foire loolu moo tax nag léegi affaire bi xaw a doy waar ñu bëri ñi ngi retiré wu toog ci seeni i biir kër mais dëgg moom xale bu ci bëgg a dugg ku ci yaakaar ne damay dugg pour am xaalis su yoboo nga def attention mën ngaa échec parce que ci jënd bi mën ngaa échec ci jënd bi la nga yaakaaroon it dégg prix yi la nga yaakaaroon mën ngaa daw ba ci biir te doo ko gis te boobaa it da ngay sonal sa bopp rek parce que xar li ñuy wax naan xar danga koy dénk xaritam xar ki ciy dugg dafay nekk xaritu xar dafay am amour bi ba pare mais bul jiital xaalis bi te instant bii ñu toll nii xaalis bi moo ci gën a ñu ci bëri ñuy dugg ci xar yi xaalis bi moo ci gën a euh, kii seen ambition yëpp xaalis la moo tax bi conjoncture bi amee crise bi amee ñu ci bëri ñi nga taxaw di jaay seen i xar mais ñun tey nga xam ne amour par amour nga ci duggoon fekk juddu fekk say maam ak say papa ak affaire yooyu yow xar yi lu mu métti métti ak xont lu mu cher cher yow da nga naxante ba gere xar yi parce que la preuve boo xoolee xar yi xam ne xar yi ñàkku ñoo dund dund bu baax te pourtant affaire yi metti na nag ñëpp ko yëg ku wax ak ku waxul mais ñi am amur moom bu doon jar cent millions bu ñoree yoree cent millions danañ ko jël danañ ko ko jënde léegi nag kit asaka nag nga toog ba sa njaboot naan la kër gi nekk fi xar moo gën nekk fi nit mais boobaa it li ngay tontu mooy ñii dañ leen a yeew te yeewu yeewuñu leen léegi nag ñi nga yeew moom ala kulli il faut nga jox leen ñu lekk loolu moom mooy nekk problème bi rek loolu kese la du leneen. ok wax nga ko sànq mais keroog maa dégg benn waay bu lay tooñ fi naan la non yow jàpp mën nga jàpp lépp loo xamante ni wàllu jëm ci wàllu xar la médicament mais bu dee nit ñi mën nga koo fàtte. Ah. waaw mu lay tooñ quoi. waaw waaw loolu ça arrive xam nga parfois sama doom bi toog xadi gis nga moom tey yàlla dogal na moom dafay am amooru xar mën na réewle xar yeeg ainsi de suite mais tey parfois mu ne ma papa suñu école nangam ma ne ko noo xaaral ah. léegi mu ne ma. waaw papa sama jàng bi ak xar yi nag affaire yooyu ma ne ko non xar yi defal ndànk xar yi priorité waaw xar yi priorité mu ne ma papa nag yooyu seetaatal li ngay wax ma ne ko waaw defal ndànk xaaral rek danaa la jox waaye xar yi ma defal leen jëndal leen lii ak yooyu ainsi de suite mais loolu amour tolluwaay la rek tolluwaay la mais xam nga tey xar kenn mun ko tëkkaleeg nit nit moo gën xar ñun ñi ñëw gën xar yi xar yi mënuñu weesu di ci faj ay soxla di ci terle bu tabaski jotee ñu tabaski ci mais bu tey njaboot gi xar yi mënuñoo gën njaboot gi il faut ñu delloo suñu xel saa di waxin na nag jigéen ñi danañ ñu tooñ naan xar yee ñu gënal sa njaboot affaire yooyu mais yooyu yow cofeel gi ngay am ak yërmande gi ngay am parce que ñii tey ku ci feebar mënul wax ne lii moo koy metti loolu yow cofeel boobu moom moo lay dem ba sonal ba yow bu la nit ñi wax sax danga naa leen yéen xaar parce que boobu bakkan bii sonn nii te moom mënul wax ne fii moo koy metti loolu moom mooy nekk sa problème yow yow bu doon sa sago rek xar bi day wér bu wéree nag ba pare nag yow da ngay nekk sa jàmm bu boobaa loo bëgg a def ak sa njaboot da nga koy def loolu rek moom mooy problème bi. ok dañuy faral di dégg ngay wax naan xar xaar la tudd. patience donc ñi nga xam ne c'est la nouvelle génération ñu ngi jël seeni xaalis parce que actuellement bëri nañu ci investir ndax xaalis bi comme ni nga ko waxee sànq da ngay gis xar buy jar 40 millions 50 millions nga koy dégg ci réew mi ñëpp dugg ci xar jël ay millions dugg ci xar cest à lan la laaj ñi nga xam ne ni mosuñu xam xar bëgg a investir juste pour business donc lan lañu war laaj ñoom pour mun a waaw ji nga xam ne ñi dañuy investir pour business parce que tey da ngay gis te loolu lu ko gën a indi mooy da ngay ñëw fekk Ablaye Dieng mu yor benn maalam wala benn femelle am femelle élite boo xam ne bi mooy femelle standard ci gétt gi parce que gétt boo dem day am benn femelle wala benn maal moo fay indi nit ñi nga ñëw ne foxet Ablaye ne la jaayu moom euh, femelle bi nga ne kut ko kut il faut mu jaay la ko loolu genre foxati lay nekk mais tu dois mettre le prix il faut nga def si prix bi bu boobaa prix bi nga ciy def parce que borom danaa la man jaayuma léegi nag day toog di la déglu ngay proposé ba wax prix boo xam ne bi li ñuy wax ne dañ laa sëfloo attanul léegi bu ñu la sëfee loo attanul moom xoolal il faut nga laaj parce que tey xar yi tey mënoo toog yow nga toog mosoo jaay xaru 5 millions wala mosoo jaay xaru 3 millions ñu nit ñëw fekk la sa gétt ne la ah sa femelle bi de wala sa mâle bi mën naa ci vingt millions ah man de dama lay wax ne boo ko jaayul amoo ay mbokk boo ko jaayul da nga maa laajul parce que xar bi mën naa xëy suba dee ah yàlla moo yor bakkan parce que yow mi moom xar bi rek suba xamoo luy xew kon nag bu ñu la proposé pri te xam nga ne lii lu jaadu la mën nga kaa jaay defe ci leen parce que xar yi juddu fii kenn nekkul ci seen biir kenn dessiné wu leen yàlla moo yor coobareem rek ku mu bëgg a taal ci xar yi mu taal la ci xar yi léegi nag bu boobaa yow li nga war a def mais mënoo taxaw yor ñu fay la benn prix bi nga ne du ko jaay loolu xel mënu ko nangu leneen li ci des ñeneen ñiy dem di jëndi ñoom dégg nañu riiru xar bi te bëgg na nañoo bokk far force léegi nag da ngay dem yor sa 100 millions wala 150 millions yow ñëw fekk ci gettu jaayul nga jënd ko bu boobaa dangay bokk far force parce que yow ay kii ay kii ay euh, xaru élite rek ngay jënd bu boobaa nag yow éleveur yëpp nag def la ruée vers toi ah, bergerie diw bergerie diw léegi nag est-ce que yow xar yi buñ juree jaay bi est-ce que dana demee noonu yow mi dem jëndi loolu est-ce que jaay bi dana demee loolu loolu mooy wax bi waaw loolu moom mooy wax le problème majeur loolu la parce que jënd bi nga jënd est-ce que di nga jaayiwaat jaay bu mel noonu ok d' accord mais sur le plan commercial parce que gis nañ ñu fiy ñëw tout le temps di la demander xar di fi ñëw fréquentation bi ñu lay fréquenté bëri na donc ay éleveurs comme ni nga koy faral di waxee rek donc élevage famille la bëriwu leen mais gis nañ éleveurs yi donc ni ñuy lay fréquenté fii mais tey ji est ce que yow euh, ci sa njaayi xar génnee xar yomb na la tey. Oh non man jaayu xar moom man moom difficile moom parce que man xar yi maanaam mënuñu maa defal lu ma amul woon damay jàpp ne man li ma jàpp man ci sama wàllu bopp man dama ne lu ma ci am rek lu may dab lay doon mais teguma ci parce que xar yaakaaruma ci sama dépense yaakaaruma ci pour dund euh, sama njaboot wala pour fay sama école yi doom wala loolu kon nag amur bi ma ci nekk parce que mbir aussi lu waay di sonn bis dana ñëw yàlla fay la ci man loolu laa jàpp yàkkamtiwuma ci buuxantewuma njëkkantewuma defuma dara man daal dama cee nekk nii lu ma ci dabit ma xam ne loolu la ma ci yàlla wërsëgale yàqunu kum ak ku ma ci yàlla booleel it parce que ñi ma koy seqalit vraiment ay nit ñu baax lañ may seq ak ñoom ci yu rafet yoo xam ne man mosuma yor nit xar ba nit bëgg cee tewlu ba ma changé ci kee déedéet man xar bii si bii bi mu fi ñëwee dama ñëw ne ah ku sentir sama xar ba bëgg cee tëblu indi sa xar mu tëbu parce que man damay yóbbu samay xar di tëbu waaw partage la rek mais mënoo tee xar tey nga naan ay yaakaar ne xar yi maaliki yow mi din du ñu maaliki yow mi din kenn waaw du ñu maaliki yow parce que damay revenir rek ne xar yi nit ñi leen gën mënuñoo mën a weesu ba weesu xar te suba suba mën nga cee teg paaka teg ko ci cin bi parce que la finalité bi ci cin la ñuy mujj waaw. ok donc ñu terminer euh, ci dernier question bi tey euh, gis nañu xar dundin bi donc wàññi nañ aliment yi yëpp mais actuellement dañu gis ne donc dafa gën a yokk. donc yëf yi dafa yokkaat dundinu xar yi donc saaku ripaas beeg euh, yeneen yi affaire yu demee noonu yëpp tey actuellement ni donc lan nga ci wax. loolu moom li ma ciy wax mooy boo xoolee ba xool d'une part man yàgg naa ko wax ma ne ñun éleveurs yi d'une part ñun ñun ñoo ko teg suñu bopp parce que tey euh, ñun éleveurs yi ñun ñoo waroon a taxaw contre euh, contrecarrer les minuteurs yi parce que minuteurs yi waruñoo gën a bëri xont bi gën a seer léegi mu ñu ñëwati dalati ci euh, guerru Ukraine bi geeru Ukraine bi boo waxee ñu ne blé maïs dañ ko doon importer moom moo ko seeral léegi blé maïs moo ko seeral mais ñun ñi ngi bay fii basi ñi ngi bay fii mboq ñi ngi bay fii mboq ñi ngi bay dugub ak lépp ñu ngi koy bay gerte fii lañ koy bay ngooñ léegi nag comment se fait léegi ñun ñu bëgg a dawal ba ay ñu bëgg ñoo jaay ay yenn prix yi euh, euh, ripaas bi jaay ñu yenn prix yi Euh, euh, mboq léegi nag état bi moo waroon a subventionné loolu wala taxaw ak ministère yi nañu wàññi prix yi yooyu yëpp wax wàññiwuñ ko léegi bu ñu waxee ne maanaam ripaas yi ñuy wax fii naan dugg na fii génn na fii affaire yooyu lii la am ak laa la am affaire yooyu mais ripaas yooyu dañu naan lii la am mais est-ce que c'est avéré que ne loolu la am parce que tey bu fekkee ne kii man xar yi boo xoolee céréales parce que ripaas yi ñuy jaay fii mënul gën céréales yi maïs mboq basi blé ak dugubu suuna mënu ko gën ak ñebbe mënu ko gën léegi nag kon su fekkoon na état bi bëggoon na élevage bi dox dafay fexe minuteurs yi subventionné ripaas mais subvention tabaski ba tabaski nga koy gis 5200 saaku ripaas mais bu weesoo loolu dootoo gisati ñu subventionné ripaas ba déwén waat ça n'a pas de sens jàppale wu ñu éleveurs yi problème mu suuf am nañ ko tey parce tey waroon nañ bay malal falfa bii c' est des fourrages yoo xam ne yi tey bu éleveur bu nekk bu amoon tey 500 500 euh, euh, mètres carrés rek mën na ci bay lu mu dundale ay xaram mais tey problème mu suuf moom mooy problème majeur fii au niveau du Sénégal parce que boo demee en Europe man à l' étranger laa nekk te man j'ai fréquenté les fermes là euh, durant 13 ans ma leen di fréquenté chaque ngoon suma ma wàccee maa ngi ci ferme yi mais ferme boo gis dafa am toolam fu muy bayee ñaxam bi muy dundale mais ñun loolu mooy suñu problème amuñu fu ñuy dundale suñu jur dañuy dem di jëndi euh, ngooñ saaku 6000 francs saaku 7000 mm-hmm. mais mënoo yor 30 tête bëgg leen a kii chaque jour da nga def ñaari saako wala saako genn wàll par jour mm-hmm. loolu pour dundal ko xar yi dafay metti mais état aussi jéemu ci dara mm-hmm. comme état jéemu ci dara ba pare aussi association éleveurs yi moo bëri léegi ñu woon organiser wu ah ne par exemple nañ jéem a am audience ak les kii le président la république ñi ngi fi organiser ay des journées d' élevage ak affaire yooyu mais ñoom élevage euh, sédentaire bi soo xoolee ci boobu lañ gën a kii parce que élevage laadum soo xoolee autosuffisance euh, alimentaire autosuffisance en viande dañ ko wax mais élevage laadum bi mënu ko assurer parce que lu tax mënu ko assurer moom mooy tey bergerie boo dem doo fa fekk dix jeunes mâles tey mën ngaa am dix jeunes mâles mais bu dix jeunes mâles yi bu tabaski jotee tey bu fekkoon na tey euh, tabaski dafay jot état ne nañ li ñuy importer ji ay xar nañu jël association yëpp lu fi nombre le nombre d' association ñu ne par exemple man damay dem ci kii euh, CRD euh, opération tabaski au niveau de la gouvernance parce que man maay président vice président wu daral euh, kii bi deux voies camp bi léegi biir foire ba la ne léegi bu fekkoon na tey dañ ne toutes les associations nañu xool ne tant de têtes lañu soxla ñu partagé ko au niveau des associations qui son au Sénégal kon bu boobaa wallahi importation xar yi dana deñ parce que boobaa éleveurs yi nekk dakaar ak yi nekk dans les régions ñoom ñooy fournir xar yi réew mi soxla valeur ajoutée boobu ñuy génnee les maliens burkinabé les mauritaniens ñoo ñëpp jël valeur ajoutée boobu yóbbu ko ci seeni réew loolu dootul amati mais actuellement nii loolu mooy problème bi wala ñu jël benn benn éleveur ci kaw mu ne maa gagné marché bi wala bu ñu ne euh, kii ni ñu ko waxati les banques la pour ñu financer dangay ngay yor bergerie xam nga ne tey man lii garanti la war naa mën a am financement wu 20 millions wala 30 millions mbaa 15 millions pour opération tabaski mais boo da ngay bind defar sa dossier nga dem fay ñu ne la non dossier bi financé wuñ ko léegi lii day gën a euh, day gën a kii day gën a empirer empirer kii bi immigration clandestine bi parce que booy bu ñu nekkee fi parce que tey actuellement nii ndakaaru foo wër kër goo wër da nga gis booy góorgóorlu dem jënd seen i ñetti xar ñeenti xar nekk ay ouvrier jënd seen ñetti xar seen ñeenti xar di ko yar ba tabaski pour jaayaat ko mais su fekkee ne dañu am problème lu ñu dundale xar yi am problème bu jaay jotee du am problème pël yi joge ca àll ba ñëw ñiy jóge Mali ñëw ku nekk ñëw ay xar te xar ay xaru saawo la ñuy indi mais xaru yar yi moo leen gën mais état moo waroon a accompagner nit ñi nag bu ñu accompagner di am ay financement immigration clandestine bii ñuy wax ni kon ci lay jaare mu dakk Sénégal xale yi nangu nañoo liggéey de mais dañ leen a jàppalewul ñu bëri ñi ngi ci élevage bi bu ñu amoon ay financement tey am na ñu bëri ñoo xam ne sax élevage laa du boobaa duñ ko def dañuy teg seen box def ci lu mot cinquante wala cent xar yu góor toppatoo leen ba ñu rafet dangay ngay dem ba benn instant boo xam ne tey day naan commune Grand Yoff boo fi soxlaa kii demal kër ab Ablaye Dieng boo fi soxlaa xaru tudd boo fi solaa xaru xaru mariage wala yooyu dañ naa la demal kër Ablaye Dieng moom mi ngi ak ay euh, xar yu góor yoo xam ni yooyu moom loolu mooy liggéeyam mais état bi deful loolu même les géniteurs yi ñu doon wax ne dañ koy partager si euh, àll bi pour ñu ñu kii améliorer raasu xaru pël yi mais dañuy toog ñu ne la yow yow yaa ko gagné nga ñëw ne maa gagné kii léegi nan ngay def exploiter borom bergerie yi gars yi bokk ci association yi su fekkoon da nga koy distribuer toutes les associations ñu ne association bu nekk na joxe tant de mal pour yu ñu joxe si àll bi mais duñ ko def te association yi ñuy reconnaître mais ministère de l'élevage xam na ko mais dañuy jël une tierce personne wala seen nit jox ko ko ne moo gagné kii su ñëwee moom danaa la jeune mâle 150 000 wala 250 000 war koo facturer moom 500 000 état loolu doxalul mbir mi te loolu moo fi nekk tout récemment nii rek am na kër gu ma dem fii ci Grand Yoff boo xam ne gi gis naa fa xar boo xam ne bii ci xar yooyu la maal yooyu la mais boo ko gisee yow sa àdduna sax day tukki moom kooku dañ ko koo may mais boo ko gisee yow sa àdduna day tukki te loolu rafetul ñun li ñuy sonn fii nii vraiment war nañ ci gis suñu bopp gis ne état mi ngi ñuy accompagner mais état accompagner wuñu ci benn boor boo bëggee dégg-dégg moom accompagner wuñu ci benn boor waaw amuñu benn ndimbal bu ñu am ci état bi prix bi lu muy gën a seer day gën a yokk kenn contrôlé wul commerce ñiy jaay euh, xont bi da ngay ñëw waa ji yor stock léegi une tonne mboq bu la ko jaayee tey 15000 bu subaa mun la 15500 te yow stock bi nga yoroon euh, jëndaatoo beneen stock même stock bi moo nekk ci yow léegi nag yooyu te obligé da ngay jënd rek te noppi loolu nag mooy grimper le prix yi ba mu àgg fii moo sonal nit ñi éleveurs yi actuellement nii te amuñu foo koy jooyee parce que association yi tey lu tax association yi bëri boo nekkee ci association bu ngeen demul ba déggoo yéen ñi mer génn créé waat beneen te ñëpp c'est la même chose la ñuy def répétition foire foire foire foire ça n'a pas de sens dem exposé ji ay xar ñu xool ko nga de léegi ñay organiser foire yi sax dañ koo def seen business su bopp ay boxu 200000 ak boxu 300000 ak boxu 100000 mais boxu mille boo xam ne bi da ngay dem wane ar xar te yow nit ñi xam nañ la ñi ngi ñëw sa kër nga dem wane ji ay xar yow ak la nga fay fare lekk ak ak xontu xar yeeg yëpp teew jëlee woo fa dara mais ça n'a pas de sens xanaa foire régionale moo gënoon ñu ne département de Dakar par année ñu def benn foire bu dewee ne ñu ne ah département région de Kaolack mi ngi def foire ñu boole comme Saint-Louis ak Louga ñu bokk def foire mais loolu moo gënoon logique foire chaque jour nga def foire am ay invité ñii laa ko tuddee day dem ba ñiy organise foire bi business lañ koy def léegi moo tax boo déggee box yi li ñuy wax ne prix yi ñi ngi business la mooy nga génn génn ci foire bi génn ci ak ay millions léegi nag day dem ba éleveurs yi aussi bu ñu defee seen analyse man ma jël sama 200000 dem di ko yóbbu ci box boo xam ne bii bu dee concours ba woo fa dara tout récemment sax la fii bi moo fi njëkk a def trophée joxe fi oto ak joxe fi des enveloppes yu am solo nit ñi gën cee sawar te ñooñu c'est des privés ñaari oto la c'est des privés c'est des promoteurs privés ñoo ko organisé comme promoteur làmb yi tey noonu lañ ko bëgg a def léegi nag yooyu su fekkee ne dem ci loolu la rek pour wane ay xar nga dem ñibbi ça n'a pas de sens parce que xar yi aussi dañu war a toog ba namm leen mais chaque jour foire chaque jour que Dieu am na secteur buy def foire mais kenn sax dootul ñëwati ci foire yi parce que yow gis nga xar yi ba doyal yow yaa ngi leen di visiter ci kër yi yow jaratul ngay dem foire amul sens te loolu moom moo fi nekk leneen nekku fi moom moo fi nekk parce que boo xoolee mois bi rek ñaata foire moo am dakaar danga fi dégg ñaata foire danga fi dégg ñetti foire ci dakaar dégg dans les régions ay foire léegi nag foire yi lan lay euh, kii finalité bi lan lay jëriñ amul benn njëriñ amul benn njëriñ amul ah man ci sama xalaatu bu gàtt nag laa wax na ma nañ ma baal éleveurs yi mais man sama xalaat bu gàtt laa wax dama ne yi ni ñu leen di organiser ne amul njëriñ mënoon nañ ko gën a organiser gën koo structurer nga xam ne foire boo xam ne bii day am foire annuelle mais foire chaque mois foir chaque fois chaque mois foire problème mu natt xar yi te natt xar yi tey en Europe da ngay am machine électronique nga teg xar bi day yéeg mu génnee ticket bi ne la LCS bi lii la poids bi lii la hauteur bi lii la mais toujours gaa yaa ngi xuloo ci foire lu ñuy xulo machine bi baaxul ni ñu natte sama xar baaxul ni ñu ko jàppe baaxul mais yooyu nag ça n'a pas de sens su fekkee ne dañoo bëgg def foire pour foire te ñu bëgg concours ak ay kii dañ dem à l'étranger ñu jënd machine électronique ñu teg ko fi machine électronique boo ko tegee bu xar bi yéegee mu wax la xoolal maceration yëpp génneel la ticket jox la loolu kay xanaa kenn du wax ne yaa laal nekk benn box boo xam bu yéegee rek ticket bi daw génn mais moo gën a noppale mais foire yi ñuy def nii aussi boo xoolee enjeu bi ay xuloo ki ah maa gën xar kii moo gën xar te boo xoolee finalité bi xar ke benn gënul beneen mhm. parce que xar yi aussi boo seetee bu ci gonte fii rek jof see fii mhm. waaw c'est le même sang qui circule rek dañuy gën a améliorante mhm. mais c'est le même sang qui circule di leen sant bu baax a baax di sant sama mbokk éleveurs yëpp nag di leen jéggalu aussi su fekkee ne wax naa fi loo xam ne lii lu dul yoon ñu xam ne nit moo motul su jura jaaree yoon it ñu xam ne sama borom kese la mais nit man moom motuma aussi su fekkee ne am na ku ma fi offensé aussi na ma jéggal na ma baal àq maa ngi koy baalu àq di baalu àq sama mbokk éleveur yëpp di wax ne nañu jàppante nañu jàppante nañu laayante biir ci xar yi àdduna amul solo lii xar kese la nañ ci jàppante nañ ci suturaalante ñu bàyyi këréel yi bàyyi xëccoo bi surtout ak aussi automédication automédication jàpp xar yi rek di pikiir ay antibiotique dama leen di ñaan ngir yàlla nañu bàyyi automédication bi jàpp xar yi di pikiir guddeeg bëccëg day tax nit ñi di consommer yàpp xar yi te du ñu wér moo tax gis nga tey nit ñi bu ñu feebaree pour faj leen du yomb parce que automédication bi moo tax da nga koy gis ci opération tabaski da nga koy gis ci foire yi ñuy piquer xari sama xar bi dafa sawarul sama xar bi doo woo vétérinaire doo def dara da ngay jàpp rek di pikiir loolu dafa sonal nit ñi nit ñu bëri actuellement ni population sénégalaise ñu ngi feebar te bu ñu leen fajee du ñu wér lu ci bëri ci ndawal yi ñuy lekk la parce que xar yi dañ leen di pikiir guddi di leen pikiir bëccëg toujours sama xar liye ko dal rek nga dem jëndi pikiir nañu bàyyi loolu ngir yàlla nañu bàyyi loolu nañ bàyyi loolu woo vétérinaire yi ñu xoolal leen xar yi bu ñu gisee lu ñu xamul ñu xoolal leen xar day jur rek nga ne pikiral peni fekk xar dugaloo sa loxo defoo dara amul benn problème nga pikir ko peni mu dem ba antibiotique bi day dem ba ancré wu si deretam léegi bis bu feebaree soo jëlee antibiotique boobu yaramam tàmm na ko dootu ko mën a faj ngir yàlla nañ ko bàyyi man daal message boobu laa leen doon lancé ak état bi mu wàññi euh, kii militaires yi ñu wàññi ripaas bi wàññi ripaas bi jaaykatu ngooñ yi nag nañ wàññi ngooñ bi ah nañ wàññi ngooñ bi kii baa ngi ñëw euh, euh, luzerne baa ngi ñëw luzerne bi omi aussi moom it mënta ñëw ba pare bëgg a seer comme ngooñ mi bu bëggee nit ñi jublu ko na wàcc bu ko defee nit ñi bàyyi ngooñ mi ñëw ci moom loolu rek laa lu may wax maa ngi di sant di leen gërëm wasalaam